Baolmedias xibaar yu wér te wóor jërë jëf mbokk yi tey alxames fukki fan ak juróom benn ci mois de juin atum 2022 franco arabe Nouroul Mahit bu Touba Kër si njiital oustaz Pape Makoura Thiaw tey alxames fukki fan ak juróom benn ci mois de juin atum 2022 taxawal bis comme nañ ko baaxoo taxawale muy jébbal ay lijaasa ci xale yi nga xam ne ñoo jàng ci école franco arabe Nouroul Mahit bu Touba Kër moo xam muy certificat moo xam muy BFEM école franco arabe Nouroul Mahit tey jii ci nag ci njàngalem Serigne Touba Khadim Rasoul bi demee nag bu juróomi waxtu jàpp juróom benn waxtu oustaz Pape Makhoudia daan di tàllal loxo mbooleem autorité yi ci ak jàppale ci liggéey bi nga xam ne koy liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci dëkkam sell bi di Touba oustaz Pape ay kàddoom ñu teewlu. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala alhaadi alamin sayid alarabi wal ajami sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ixwatu almustamiin alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu nuyoo jullit ak morom ja ñu ngi leen di ziyaare bu baax te di ndokkeel jiital ci suñu nuyoo ak suñu ziyaare xalifa général kulu murit euh, sëriñ Muntaxa moom cheikh Mouhamad El Bassir di siyaare sëñ cheikh am sëriñ di ko ñaanal fan gudd lool di siyaare tam al imam sëriñ Saalihu Silla fa tabaarakallaahu di nuyu mbooleem jàngalekat yi nga xamante ne bii ñoo ñu fekk si ci bés bi tey di feetoog ñun feet gi nga xamante ne bii dara gën gënu koo am solo fi ñun di nuyu wajuru dongo yi waju nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi di nuyu dongo yi itam. di sargal mboolem sunu mbokki jàngkat yi yi nga xamante ne bii bàyyi nañ seen i itte te teew ak fi bés yi mboolem ko jàngale kat ak noo xeetoo ci njàngale bi moo xam da ngay jàngale alxuraan ñu tuddee la sëñ daara moo xam da ngay jàngale alxuraan ak arab ñu tuddee arabisan wala ngay francisant ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax te leen ziyaara mu mel ne niñ koy baaxoo di ko defee rek tey alxames fukki fan ak juróom-benn. ci mois de juin la ñuy taxawal ndaje boo xam baaxoo nañ ko di ko amal diirab ñaar fukki at ak ñaar ci ren fa tabarakallaahu ren ji ñu dara jaale ko koo xamante ne bii kenn du ko nattable muy eh, eh, sëriñ Fallou Mbacké moom sëñ Mbacké soxna loo sëñ fallu Mbacké conseil départemental bu Mbacké fa tabarakallaahu muy borom jëf ju rëy yoo xamante ne bii ñëpp xam nañ ko ci territoire Sénégal bépp ak bitim réew ci xam-xamam ci yaram ci tegginam yore ndombay tànk nag yoo xamante ne bii diirëb ñaar fukki at yi nga xamante ne bii wala ñaar fukki at ak juróom-benn musul dañ doon yore ndombay tànk diine ñor ko lool nag fa tabarakallaahu mu jël ñu teg ñi ci wetam ngir jàppale nu ngir jàppale diine ngir jàppale sëñ daara yi ak nunu xeetoo fa tabarakallaahu ci ak matale fa tabarakallaahu moom moomu nag di sëñ fàllu moom lañ dara jaalee bés bi fa tabarakallaahu amaana incha allahu Eh, nam daan def nan na ko defee teew ak délégation boo xamante ne bii jéggi na dayo bu ko defee nag eh, message bi ñuy jàllale mooy ndaje mi lu tax ñi di ko amal daara ji dong tax xam ngeen daara joo xamante ne bii eh, mi ngi soso woon 2000 ba deux dem na ba terminal fa tabarkallahu di génne ay jàngkat ak i jàngalekat di former ay jàngalekat di former itam ay xale yoo xamante ne bii doomi réew mi lañu ak gox goxaan yi nga xamante ne bii ñoo làng ak Touba daara jooju bu melee nii mu mel nii fa tabarkallahu jaar nañu weer ko nag ba ñooñ lislaam yëg ko bu ko defee itam eh, ñoo ngi koy ñoo ngi ñoo ngi lancé appel mboolem koo xamante ne bii kilifa ak diine nga. ñu mën ko koo tuddee wala muy kilifa ak aada ñu mën ko koo tuddee wala ngay kilifa te kilifa la nu gëm lislaam kilifa la xam kon nag kilifa yëpp ñu ngi leen ko yëgal képp ko lislaam ñor na nga xam ne daara jaa ngi nii daara yi askan wi la daara ji askan wi mënuñoo ko ñàkk lu tollook juróomi téeméeri dongo ñi ngi fi fa tabarakallahu ah, kon nag daara ji bu raf rafetlee nii nekk ci am marché kon nag nay lu siiw muy itteey sox itteey askan wi ñu jàpp ci bu baax a baax ki nga xamante ne bii du ñu joxe kàddu gi mukk te sant ñu ko gërëñu ko muy Abdoul Aziz Niang muy président union pour le progrès islamique de Sénégal keroog bi ma ko ko jàmbatee lam njëkk wax mooy am naa ab terrain Touba jox naa ko daare ji nañ nañ jël terrain ba lu nu xam nan ko def muy jëf ju rëy moom président nag yaakaar naa jëfam eh, jéggi na dayo depuis 2000 depuis de 98 euh, la loxoom dugg Touba mbooleem jàngalekat yi nekk ci biir gouvernement bi tey di liggéey ñu bare bare bëri dog na seen buum ak njaam ndax wax dëgg yàlla diplôme jafe woon na fi lool waaye yàlla ak moom moo ko fi indi am na fi ay xale yu jógee fii dem bitim réew jàngi ba dikkaat yàlla ak moom a tax kon moom eh, mujj mbir eh, day tekki na rek eh, fonk gu fonk fonk gun ko fonk moo tax suñ kàddu mujj ko dudd waaye nañu yëg ne moom moomu def na ci dëkk bi loo xamante ne bii doo jaadu na ñu seereel ko kilifay dëkk bi ñu seereel ko sëñ Muntaxa seereel ko mboolem koo xamante ne bii da ngaa nekk ci ronu sëñ Moustapha sa sëñ Muntaxa kon Abdou Aziz Niang ñi ngi koy ñaanal bu baax fan gudd ak wér yaram ndax yombal na loo xamante ne bii jafe woon na te amul xeej ak seen kon ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp delluwaat ca njël benn ga rek ah teyal suñu kàddu suñ Fallou Mbacke moomu barki mu dafa ma woo yóbbu ma ci benn réunion ma wuy ji réunion bi muy réunion de santé mu amal loo xamante ne bii mus lu am kon faw ñu wax ko itam mooy mboolem donga daara yi. joxagum na ma junni donga daara yoo xamante ne nañ ko tànn ci daara yi woo leen ay jox leen ay karne mutuel ngir ne ko français do xale bi jàng tubaab ni mu ko amee moom itam donga daara bi am ko su feebaree kenn ñaanu ko yàlla waaye moog dama dama ànd su demee ci euh, dispensaire bi wala poste de santé bi wala hôpital bi dañ koy faj gratuite du fay consultation loolu itam wax dëgg yàlla askan wi ñu seereel leen ko na sëñ Fallou moomu kat daara ñor na ko ni ko ni mu ñoree woon Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ni mu ñoree woon Cheikh Mbacke Gaynde Fatma noonu la ko ñoree kon nag nañ ko ñaanal ndombal tànk lii ñu ko takkal muy président conseil départemental bu Mbacke yàlla na sedd guy lépp lu mu lu def yàlla na ko def lépp lu ko askan wi yaakaare yàlla na amal lu gën a kaw njort kon fii la ñu yemale suñu kaddu di wax ne daara jaa ngi nii askan waa ngi nii lislaam soxla na daara ji ndax jàng ak jàngale mënut a ñàkk te dëkk bii kat la sëñ Tuubaa waxoon rek wa mawdi ol fikrati wa tafahumi kon wóoti wutoon ngir dara dëkk dëkk bi jàng la ak jàngale ak jaamu yàlla ak liggéey ñeent yi daal bu jógee ci Touba dafa mel ne day bëgg yem ak dëkk yëpp te daara ji rafle wu na soxla na ko ko taxawu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baol Média xibaar yu wér te wóor